am nga ku sikk koo xam c'est mal de Dakar ana jag boobu mooy kan ci ñii ana jag ku yëngu mu dóor grenade sonn nanu dañuy mars ku wax mu dóor grenade bu politicien yi jógee mu grenade étudiant yi jóg mu grenade transporteur yi jóg mu grenade yow daal yaa nga ca jolof di buur moom mooy exécuter say ordre ba pare delluwaat te kenn xam ko jag solal nanu nag dañuy mars dañuy wax dañuy xeex dañuy xuloo ndax da ngeen a wax di mars di xeex ba ngeen jël ba jël réew bi xam nga première càcc wul carte d'identité bu amul turu ndey amul turu bay bo démé di déposer foo mënti dem na léna andi sa ancienne carte d'identité wa do ci léral nit ñi doxign bi pour lan so gisee carte yi fees dell ci préfecture yi sous préfecture yi da ngay bindo gédjé way ñu yobbu sa carte euh, fongele mi ñu yobbu ko saré ya koy ku dé lo jëlé saw carte lolo tax carte yi dess fi monsieur le ministre stabilité réew mi ci sa loxo la né dëkk buñ tuddu gaz tuddu fa euh, euh, ki nu mu pétrole jamm jeexna ñu ngi sa gannaaw nak yaa ngi nii di ma xool yaa yor responsabilité yaa yor suñ stabilité sun sécurité ya ko yor ndegam man nga dar na nga ci taxaw ba ñun ñu mucc ci jamm ndax Sénégal yi jamm rek la xam monsieur le ministre ah Karim nak ndeysaan mo ne suko baña tuddu ndax xalé bës la fi ku fi wax tuddu nga Karim te moom tuddu len ma nga tok japp njaamuram waye amuñu candidat yeen am ngeen candidat ba len nu am ngeen candidat waye am ngeen ñu ram mom mi ci la bok Amadou Ba ci la bok yeen ngeen ñu nekk ci gannaaw di côtoyer xaar ku ne hop ngeen ne départ bàyyi len nag suñu candidat bàyyi len nag suñu candidat Karim mooy sunu candidat il n'a pas été démis de ses fonctions bu fekkonte ne bopp bi baaxul du yor doomam te ma nga yori doomam su bopp bi baaxuloon euh, du yor ak njabootam te ma nga yor ak njabootam di gérer ay biem